plénière bu gaaw la député yi amal tey ci suba ca assemblée nationale juróom fukk wala sax juróom-ñaar fukk ak ñeent ñu ci ñoom bi nu dajee ñoom ñëpp kon daal di nañu voté ni ngeen ko gisee ngir rek jox ndigal fukk ak ñoom ci rek ñu mën a daje daal di samp li naan commission ad hoc su ko defee ñu mën a déglu kon Boubacar Biaye ak du Sall min toppee wàllu passeport diplomatique ci wàllu njuuj njaaj su ko defee kon ñu daal di leen di déglu président Moustapha kon moom moo doon présider boobee ndaje ndax euh, fukk ak benn la juróom-ñett ñu ngi bokk ci pouvoir bi ñaar ñi ci groupe parlementaire bu PDS euh, di liberté et démocratie kenn ki kon di Marème Soda Ndiaye moom moo bokk ci non-alignés ñu déglu sax ka nekkoon rapporteur bi di soxna Yaya Diallo ci micro Marcel Farba Maroon. L'adoption. Conformément sur proposition de la commission des lois de la décentralisation et des droits humains décide de la création d'une commission ad hoc composée conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement intérieur de Cheikh Abdou Mbacké Mame Diarra Fam Aymirou Gning Adji Diarra Mbergane Djema Ndiaye Ba Pape Biram Touré Sira Ndiaye Morkan Ndiaye Djibril Waar Cheikh Seck et Marème Soda Ndiaye ñoom ñooñu kon fukk lan ak benn jamono ji ñu ngi daje ngir rek fal seen bureau ñu xam kan mu jite boobe commission ad ak kacca topp ñu fàttali kon ñun joxoñ baaraamu tuuma mooy Boubacar Biaye ak El Hadji Mamadou Sall di ñaari député yi bokk ci benn bokk yaakaar Euh, ba tax na rek euh, soxna soo su doon liir këyit gi di Yaya Diallo nee na commission loi bi li mu bëgg rek mooy li naan présomption d'innocence it ñu daal di koy respecté bàyyi yoon mu def liggéeyam te ñoom it député ya la leen ca war dañ ko mottali dañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo ak ndaw luñ fa yebal foofu ci assemblée nationale tey ci suba di Marcel ba Maron politique ba léegi élection locale yi ñu ngi koy waajal ñaar fukki fan ak ñett la ci weeru janvier ci atum 2022 njiitu réew Macky Sall daal di signé ab décret ngir rek wax diwaan bu nekk ñaata ngay am ci ay conseils municipaux wala départementaux loolu nag ñi ngi ko sukkandi ci diwaan bu nekk it la nga fa am ci doomu aadama yu mën a voté ci fichier électoral bi muy étape bu am solo boo xamante ni kon mi ngi gën a firndeel amaayu yooyee élection Mame Birame Diouf conseil départementaux yi ci gox yi ñeel élection locale yi di ñëw di wane xar kanamu région bu nekk ak dayoo nga xam ni nar na ko am eh, ci woote yooyee région bu Thiès jiitu ci moom a nga xam ne ni am na lu toll ci 280 conseillers Mbour am 100 Thiès 100 waaye gox gi di Tivaouane di département bi am lu toll ci 80 région ga ca topp di Louga Kaolack ak Saint-Louis muy ñett région yi nga xam ni kon ñoo jël ñetteelu place bi am ku ci nekk 200 conseillers municipaux Dakar Fatick ak Tamba jël ñeenteelu place bi totalisé région bu nekk 180 conseillers départementaux 160 conseillers départementaux Matam am ko Ziguinchor am ko ak Kolda 120 conseillers ñu nemmeeku ko ci Sédhiou ak ci Kédougou lu ñeel décret nga xam ni nag jëm na ci limu conseillers yi ñu war a tabb kon ci conseil municipaux yi waaye dañu séddale sièges yi nga xam ni kon war nañ ko am ci ñaari scrutin yi muy proportionnel ak majoritaire région bu Dakar moom rek mu ngi am lu toll ci 3188 conseillers région googee ki ci topp di Thiès mi am 2000. jërëjëf maam Biram Diouf ñu ngi leen ko doon ci euh, bopp xibaar yi wàllu wér ak institut perfectionnement privé di IPP bi nekk fële ca avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mel ni kon saafara ngay am ndax jëwriñ ji dénk wàll woowu daal dina rek jël dogal jël juróom fukk ci malade yi amoon insuffisance rénale doon amal seeni dialyse ngir rek ñu tasaare leen ci opito yi koy def ci Ndakaaru ak région yi su ko defee ñu mën a saafara seen ay jàngoro di fàttali ni kon dañ leen a génne ndax rek barab ba euh, kaka moom euh, dafay sàkku ñu fay ko luyaas ba tax na kon mu demoon ci justice mu jox ko dëgg ci ñëwaat ci nii mu gën a yaatoo ca Saraya it Saraya nekk ca région bu Kédougou foofu it kilifa yi dénk administration ba ñoom ñoo jël dogal rek ngir wàcc ci centre de santé bi nga xamante ni grève yi bari na trop ngir rek xool naka lañ koy joyante ngir it mbir jaar yoon ba képp koo xamante ni feebar nga ñu mën laa faj ñu ànd ci ak sunu correspondant ci région bu keddugu di Ibrahima jabaxate secteur santé bi jànkonteel fële ci département bu Saraya doon na lu autorité administrative yi nemmeekoon fële ci Saraya tukki nemmeeku boobu bu ñu fa amaloon wane na seen i jaaxle ci ni ñu yoree centre de santé bu Saraya. des fois man soo ma waxee quand vous me parlez des damay bés sama xol parce que mënuma chaque fois di jote ak yow mais je me dis mais s'il me parle comme ça comment il va parler à ses agents moom dafa may dépassé de am na bu doon yeneen préfet yi dootuñu waxatee daf may dépassé une fois dama ko woo parce que am na koo xam ne dafa amoon Covid ma ne ko kii doo bàyyi ba mu def 14 jours yi mu ne ma waa d' mu ne ko kii le vendredi lay reprendre xam nga lu ma tontu mu na reprendre le lundi loolu ma tontu ma ne ko kii vendredi lay reprendre mu ne ma na reprendre le lundi. médiation bu gouverneur bi amaloon ci centre de santé bi xaw na indi déggoo ci diggante personnel bi ak kii di médecin chef du district sanitaire bu Saraya. boo njabootee ñëpp am nga sañ-sañu ne diw noppil diw noppil diw toogal diw jógal. taxawaay boobu laa taxaw tey wax leen ni nag am na foo xam ne wax ji war na fa mën a yem ñu ànd liggéey ba nga xamante ni nag li nga xam ne ñu ngi koy def di ko gëstu bu sottee ñu xam yëf yi fu mu féetee mais sama sama sañ-sañ la ma taxaw en tant que ku njaboote ñëpp ci région bi ne leen taxaw leen bàyyi li ngeen di def te ñu jublu ci yitte askan bi yitte askan jaxasoo boobu nag il fallait man ma ñëw tey waxtaan ci ak ñoom ba pare joxañ leen yoon bi fii la ñu jaar fa ànd fa jaar pour seet nag fan lañ jëm même su fekkante ne ndaje boobu tax na bu ñu tàmbali waxtaan yi ci diggante protagonistes yi waaye climat de méfiance bu nekk ci biir centre de santé bu Saraya mënatul ànd ak liggéey bu jaar yoon bu nar a njëriñ askan wi. mécaniciens yi nekkoon ci ancienne piste léegi tey kon ñu daal di toxu dem ca Diamniadio barab ba nag daanaka fukki hectare la woon ñu yokk ci ñett muy fukk ak ñett ñoom amaloon nan fa tukki nemmeeku di xool ndax boobee barab dana pareem déet fekk une semaine la leen kon ngi rekk ñu daal di dem foofu su ko defee li naan euh, encombrement fii ci Ndakaaru ñu mën koo xeex di jof Diagne Bamba Samb. commune bu Sébikotane ak Diamniadio fu soriwul dara autoroute bi bërëb bi nga xam ne nag moo war a dalal mécanicien yi nekkoon ci ancienne piste bi daaneke pare na dina am lépp loo xam ne moo koy may mu méngoog jamono. lii début bi la ñoom dañuy def dañuy njëkk jot suuf si. Mm. ba ku nekk moom sa yëf. Mm. après dinañ leen aar ci naaj bi ak ci euh, taw bi parce que mënoo ñëw nit sànni ko nii ni ko toog ci naaj bi ñun kenn du ko def gaa yi ci bureau yi di kii. ñoom comme dinañ opté nañ leen fexe ba def leen condition yu gën ci condition yi. ñëw ngir xool bërëb bi mécanicien yi di xamle ne seen xel dal na ñoom ñi nag ñuy sàkku ci état bi mu dal leen di jox liggéey bi nga xam ne moo ñeel defar oto yi nga xam ne état bi moom moo ko moom. defee lu mel nii muy lu rëy loo xamante ne tey c'est une première ci Sénégal da ko war a accompagner ñu ngi ko war a accompagner mooy marché automobile bi nga xamante ne tey jii li ma gën a neex nag mooy keroog ba ministre bi ñëwee seet si ñu ne. jam ñaajo bu kenn bañ ci yéen ndax ñun ñi fa lañ ne kon yéen ñi fi ne yor oto yi fii muy oto état bi jox leen ñu marché boobu ñu di ko liggéey bu ñu joxee marché boobu ñu di ko liggéey dana tax ba bu ñu fi dikkee du ñu some dina tax ba bu ñu fi dikkee dinañ tàggaaw am liggéey. jëwrin ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu artisanat nag di sàkku ci yeneen maire yi ñu daal di roy ci modèle bii. loolu mooy li nga xamante ne président noonu la bëggee artisanat doxe pour que tey jii fii ñuy nekk muy. Euh, Sébikotane muy exemple pour Sénégal yëpp léegi nag ñun ñuy ñaan maire yi nga xamante ne ñoo ne fii ci Sénégal ñu xool ci Ablaye maire de Sébikotane pour que ñoom it ñu jox ñu ay espace yu ni mel ku ne ci sa dëkk pour ñu nga xamante ne lii ñuy def muy exemple ñu mën ko yaatal ci lu soxal nag seen responsabilité sociétale d'entreprise Onura Group nag di xamle ne dina tàggat ay ndaw yu nekk ci Sébikotane ak Diamniadio ci métier yi nga xam ne nag moo ñeel wàllu oto Euh, loolu nag wutee ak lan gis ca kaw Kaolack ñu nekk ca marché poisson bu moom am lu leen métti ndax dañoo jàpp ne boobee marché salte na te tamit euh, ma ngay waaj a yàqu li ko waral mooy ñàkk toppatoo ba tax na kon ñoom it euh, ñu yuuxu wàllu bëgg kilifa yin ko dénk indi ci saafara ñu ànd ceeg Papa Mbaye Diaw ak Fally nekk ci marché central au poisson ñoom nag jamono ji nee nañ mënatuñu ci jafe-jafe yi nga xamante nii moom la ñu nekkee buñ sukkandikoo ci ñoom toll ci at a ngi nii mënuñoo am glace goo xamante nii moom la ñuy def ci seen jën yi boole ci tamit melokaanu marché bi doy na waar loolu ay jafe-jafe la leen indil ci seen i activité marché boo xam ne dafa dégradé wu marché boo xam ne dafa yàqu parce que lu toll ne marché central au poisson de Kaolack nga toog un an un beneen bi ci topp mooy amuñu ay chambre froide ay dencukaay lañu yor parce que glace sax chambre froide bi jën yi ngi ciy denc da jël glace def ci te boo xëyee fekk glace gi seey kon donc amuñu chambre froide amuñu aussi li nga xam ne moom mooy usine glace euh, li nga xam ne mooy biir marché bi dara doxu fi aussi dara baaxu ci. boole ci tamit li nga xamante ni moom la ñuy wooyee concurrence déloyale ndaxte buñ sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci marché au poisson boobu foo dem ci Kaolack da nga fay fekk ñu teg fa ay nit di jaay ay jën te loolu jeexintal gu métti la indi ci seeni activités yi. c'est la vente anarchique de Khaïga cette vente là. li ñuy wooyee marché xayga moom jamono ji sonal nañu trop mënuma sax wax ne marché la ndaxte loolu homologué wuñ ko fii benn marché au poisson rek moo fi am mooy ñun ñii fi ñu nekk waaye foofa nga xamante ni fa la ñuy jaayee jën suñu activité yëpp moo ko yàq ndaxte nit ñi kenn ñëwatul ci marché bi foofa ngay dem loolu nag danoo bëgg mu dakk ba tax ñu ngi ciy autorité yi. occasionné des de des des des des des intoxications alimentaires. association utilisateur marché central bu poisson nag ñoom daal dina teg seen bureau bu yees bureau boobu nag mission rek mooy fexe ba jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu nekkee ñu daal di koy saafara. ñu dem ca Ziguinchor quartier bu naan Kajalang Pël foofu nag lu toll ci ñaar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay njaboot ñoo amaloon rek conférence de presse bëgg koon lotissement yéen fay amal laata ñu cay sori ñoom it ñu jox leen ci seen wàll ndax calan bokk loolu nag ñi ngi ko yëkkati ci micro suñu correspondant ba nekk ca Ziguinchor di Boubacar Diassi ki wax Abdoul Diédhiou la yor kàddu askan wi. ça quatre mois de cela ils ont fini le travail euh, juin depuis lors on bi ñu noppee ci liggéey bi mat na léegi ñeenti weer. ndaxte la 16 juin lañ cee noppi. ba léegi ñun xamuñu li ci nekk. kon boo ko ñun dañu bëgg xam lu nekk ci dossier bi. ndaxte bu ñu respecté wul ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk. ak juróom-benn famille yi ci nekk. te dëkk fii ci cité Pël. joxe yi ñuy joxe suuf si. ñun daal duñ ci nangu. yónnee nañu ay bataaxal monsieur le maire Abdoulaye Baldé. yónnee ko gouverneur bu diwaan bu Ziguinchor. waaye it yónnee ko ci préfet bu Ziguinchor. commissaire police centrale ak commissaire BMS sax jotuñu seen i bos ñoom ñëpp nee nañ leen ñu bàyyi xel ci biir dossier ndaxte bu ñu sàmmul seen kàddu jëmale ko si ñaari téeméer ak ñeenti fukk ak juróom-benn famille yi nekk fii lépp lu ci juddu ñoom ñooy responsable yi. recenser ici à Cité Sibel tout ce qui se passera ici comme conséquence ils seront des responsables. dem ca Fatick diwaan bu naan caare ñal gi foofu nag ab commune lañu jàpp ni daal ndool ga bari na fa trop li ko waral mooy ay jumtukaay yoo xamante ni ñoom ñi ngi koy wër boobu ba léegi mënoon koo am ci ñeent fukki dëkk fukki ak benn rek ñoom ñoo ci am courant ba tax na kon ñoom bëgg na ñu ñu geesu leen am na ndaje mu am solo boo xamante ni borom xam-xam yaa képp ku dëkk ca diwaan ba teewe nga ko ngir ñu xeltu nee say def ba diwaan ba ñu génne ko ci yooyee jafe-jafe Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey Caare Njaal gi bokk na ci commune yi nekkee ci département bu Fatick yi gën a dellu ginnaaw daanaka nee ñu nag moom moo nekk ci fukkeelu place beeg juróom ci fukki ak juróom-ñaar yi nekkee ci département bi buñ sukkandikoo ci ab jàngat bokk na ci seen ay point ndox mu sell moo xam ni ñëpp jotuñu ci. dañoo gis ci xayma bataaxal bu génn ne département Fatick bi nga xam ne fukki fukki commune ak juróom-ñaar la Caare Njaal gi mooy fukkeel ak juróom euh, ñaari commune rek lañ raw ñun nag bëgg nañ fii ba bu ñuy xayma xayma boobu ñu ne Caare Faranjal gi moom moo nekk ci kaw ci ndox mi ne ñetti forage kese ñoom ñoo nekk ci ci ci dëkk bi loolu nag dafa nekk loo xam ne tuuti na. foofee nag ca njal gi dëkk ya fa am courant ba léegi bariwuñu fukk ak benn la rek te moo ne de village ya fa nekk daanaka mat na fanweer. courant bi donc yeggaguñu sax ci cinquante pour cent mu dese ñu lu war a mot fukki dëkk ak juróom-ñeent ak amoo yi nga xam ne amaguñu courant. amoon na benn commission boo xam ne moom moo doon saytu financement bi nan la war a doxee ci commune bi parce que am na ay doom yoo commune Thiarendial gi mën nañ ci jàpp. commune boobu nag nee ñu lu tollook vingt six mille habitants ñoom ñoo fa dëkk am na nag juróom-benni poste de santé ak ay case de santé tey itam école yi bëri nañ fa waaye lu ëpp ci école yooyu nee ñu amuñu mur de clôture. caare am na ñaa fukki école ak juróom-benn yoo xam ne école yu ndaw yi la mais quand même ñun tënk nañ suñu programme ne bëgg nañ lépp loo xam ne moo doon mbaar ci wàllu école yi am na fi ba léegi mais bariwul dina ko dindi dinañ góorgóorlu ba clôture école yi nga xam ne ñoo fi yi ak sécurité jàngalekat yi. lu tollook ñaari fan nag ñi nga xam ne ñoom ñoo cosaanu ci dëkk boobu dajaloo woon nañu doon waxtaan ci ni ñu war a def rek ba seen dëkk boobee di caare njal gi développé génne ci ndóol gi mu nekk. ci wàllu transformation produit ñoom nag jóg nañ rek ngir xeex googee ndóol tax na kon ñuy def ay ndaje yoo xamante ne daal bëgg nañu wan yoon wi ci ndimbalu chambre de métiers ak municipalité ba su ko defee bépp jafe-jafe bu nuy ñuy jànkoonteek ñu saafara ko ca diwaan ba Ousseynou Diop Habib Seck ndax soxna yi ñoo ngi góorgóorlu ngir mën a demal seeni bopp fédération des femmes bu nekk ci ginnaaw raay daal ci yoon bu nu mel xeex ndóol bi ak jàppale jigéen ñi ngir ñu am formation bu wóor si la ñu nekk ngir mën leen jàppale former ay jigéen ñuy soppi gàncax gi ak lii di jiwu bi. ñu xam ne tamit nit ki soo bëggee am te amoo métier sa am-am du dem wala sa xam-xam du dem ndax euh, li ñuy wax jàng du wees parce que fii presque ñi nga fi gis ñu jox leen ay diplôme ñëpp presque ñëpp ay mag lañu. waaye kenn ku ne mën nga mooñ mën nga araw ndax juddu nga ci yaru nga ci ndax xam nañ ne jigéen ñi noo nekk ci kër yi te jigéen ñi tey bu ñuy liggéey ndaw ñi ñoo tax. Sénégal li muy jëgaani mën na ko am bu fekkee ni daan nañu gën a góorgóorlu ca nañuy soppee li ñu bay mooy xalaatu njiitu chambre dee métiers. lépp lu koy dindi si wàllu ñuy dem di jëggaani bitim réew wàcc li lay tàmbalee kon ñun fi ñu toll nii vraiment dañ am taxawaay pour que lépp lu ñu jëggaani ñu fas yéene ko am fii. ci ndaje yu ni mel ñi fi teewaloon maire bi daan nañu gën a ñaax jigéen ñi ngir ñu mën a demal seeni bopp ñu jàpp ni nag loolu rek mu mën a xeex lu jëm ci wàllu bi ñaan leen itam ñu gën a farlu ci seen mboole yi ñuy taxawal. jot amatul e, te dana tax jigéen ñi nga xam ne ñoo daan nekk seen kër yi e, nekk war a soq dugub war a def lii war araw muy mett ci ñoom loolu dana wàññi seen coono ci wàllu boobu mais tamit dana tax ni. ñii ñu former ñu mën a demal seen bopp. jigéen ñi nekk ci diwaan Ndar Géej nag léegi ñu ngay jéem di demal seen bopp ay formation yu bare la ñuy amal ngir mën a soppi la ñuy jëlee ci mbay mi. jërëjëf Ousseynou FESPACO ëllëg lay jeex ñaar fukkeel ak juróom-ñaareelu édition bi doon fa am ba tax na kon ñin dénk wàllu régulation di xool naka la télévision yi di doxee fii ci Afrique ñoom it ña nga fa woon di xool archive yi ci wàllu cinéma loolu nag ñoom ban pare njiitu réew ma di Roch Marc Kaboré daal dina leen di dalal ban fa demee nag wax na naka lañ def rek mbir yooyee archive ñu mën koo denc waan tamit seen taxawaay ñoom euh, régulateur yooyu nekk ci UEMOA ak ca leen jiite sax di Babacar Diagne jiite CNRA fii ci Sénégal ba mu génnee ca audience ba kàddu yi la dénk suñuy ndaw foofa Ibou Diouf ak Yaya Diallo. à ah, Ouagadougou avec deux préoccupations majeures. tukkib nameeku bi ñu amaloon nag bi ñu ñëw indaale woon nañu ñaari soxla yu ñu yite lool loon. bi ci njëkk euh, mooy nees def mën di liggéey waa UEMOA ci anam yu mucc ayib euh, di jokkalante di weccoo xalaat beneen bi nag waroon nañ saytu tamit lépp lu aju ci archive audiovisuelle nees def ngir sàmm ko aar ko mën ko di gën a jox gëdd. loole nag euh, mënees nañu wax amal nañ ko ci ay anam yu mucc ayib te jawriñ bi ñu dénk présidence commission UEMOA di Abdoulaye Diop dalal nañu. déglu nañu tamit nee na dina def kem kàttan ngir dooleel ñu ci suñuy euh, taxawaay moo xam jumtuwaay moo xam tamit koppar bi ci war loolu nag ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax te dinañu may ëllëg ci biir ñu gën a euh, mën di liggéey bu baax a baax ak waaye la coopération pour arriver vraiment en lien organique avec jërëjëf euh, Ibou Diouf mbokk yi ñu ñëw nag ci li gën a fës ci xibaaru tàggat mi ànd ci ak Mame Fatou Ndoye lay nuyu lan moo gën a fës ci xibaar yi. alors euh, li ñuy tàmbalee mooy euh, matchu jàmbaar bi nga xam ne yegg si na Abuja démb club sénégalais bi nag ni ngeen ko xamee ci match aller bi dafa lajjoon benn bal euh, ci dara fii ci stade Lat Dior loolooy waral nag demee foog mu def kemt lay kaptanam pour mën a inverser tendance bi Serigne Saliou Dia di sélectionneur équipe nationale bu U17 moom am na ci yaakaar gis na ni équipe bu jàmbaar bi bu defee intensité ak rythme mën na inverser tendance bi ci kanamu. équipe nigériane bii di Enyimba ñu déglu ko ci euh, waxtaan bu mu am ak Cheikh Tidiane Diaw. Coupe de reste tout le temps la première match est perdue donc il va falloir pour Diamba se retrousser un peu pour cette deuxième match mais je pense quand on voit euh, le premier match on peut avoir de l'espace parce que c'est un match où Diamba avait dominé son sujet Diamba avait plus d'occasions Diamba avait plus de possibilités de scorer voilà la, le plan de l'adversaire était très simple avoir un bloc très compact voilà, et essayer de, de jouer une attraction sur le plan offensif. Je pense que c'est c'est ça qui les a donné, euh, un but, parce que le match s'étire, plus Djamba était un peu pressé de marquer. Et là, les espaces étaient là en place et ils commençaient à exploiter ces espaces. On a vu que c'était une équipe qui usait plus ou moins de leur ballon, parce que je pense qu'ils avaient plus ou moins supervisé Djamba. et que il essaie de mettre long ballon dans la défense Diamba, il essaie de mettre un 4 contre 4 là-bas. Donc il va falloir que Diamba soit prêt aussi sur cet aspect. Voilà, pour ne pas être super en ce match. je pense le retour, c'est possible. Si Diamba met plus de rythme dans le jeu, plus d'intensité, mais plus de jeunesse. Voilà, joue avec beaucoup détermination parce que je pense, euh, face à l'expérience, il faut opposer un peu la fougue, la jeunesse, l'enthousiasme. voilà sëñ Saliou Dia ñu jéggalu nag ndax euh, extrait wolof bi lañ doon euh, xaar waaye yaakaar naa ni comprendre ngeen un peu lu mu wax ci ritme beeg intensité bi ak dellusiwaat ci match bi nga xam ne euh, mooy matchu aller bi. alors décision bi nga xam ne léegi la wadd muy match Kër Madior contre Linguère bi nga xamante ni moo tëjoon vingt sixième et dernière journée bu Ligue 2 match boobu dañ koy joué waat loolu nag ki ko décider mooy commission de discipline bu Ligue sénégalaise de football. professionnel bu ñu fàttali ko Linguère euh, dañ ko déclaré woon forfait ndax bës boobu ci match boobu indiwul woon euh, ay licence waaye règlement bi dafa wax ni que am na yeneen moyen pour euh, vérifier identité joueur yi te dafa mel ni ci bës boobu officiel yi doon saytu match boobu defuñu lépp li ñu war li leen war pour donc vérifier identité joueur yi looloo tax na commission de discipline bi décidé nii dañuy rejouer waat match bile ñu wax ci euh, week-end bi ñu génn li nga xam ne dañ ko reporté woon muy symposium bi ligue sénégalaise bu football professionnel euh, waroon amal euh, gannaaw bi Joseph Koto génnee àdduna ñoom nag waa ligue sénégalaise de football professionnel ci ñaari fan yi ñetti fan yi lañ nar a organiser li nga xam ne mooy symposium bi mën nañ ni crème bu football sénégalais ak acteur yi dinañu daje ngir waxtaan ci yenn thématiques yi lu ci mel ni wàllum koom-koom ak jafe yi nga xam ne football Sénégal surtout football professionnel mu ngi koy am ci wàllu gouvernance ak wàllu infrastructure loolu nga xam ne pàcc bu am solo la ci football local ak li nga xam ne mooy marketing ak communication ñetti fan de réflexion pour les acteurs du football sénégalais Maam Fatou ñu des ba léegi ci football dafa mel ni am na tournoi bu ñu waajal jagleel ko kër docteur ngir sargal leen. waaw AS Pikine euh, Casa Sport Dakar sacre Cœur ñaari Tali US Gorée ñoom ñu nekk juróom ñaari équipe yoo xam ne dañuy def euh, tournoi bi li nga xam ne dina tàmbali euh, dimanche équipe yooyu nag ku ci jiitu sa poule yaay dem directement final acteur sport bi footballeur yi ak basketteurs yi mobilisé wu ngir joxe ay loo sargale ko ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur Doudou Aw. ki nga xam ne moo jël initiative organisée ne moom la ñuy déglu mu expliquer ñu un peu li tax mu sabab initiative bi. sargal docteur yi nga xam ne ñu nekk ci réew mi si seen taxawaay ci mbas mi donc depuis mars 2019 ba léegi niñ seen niñ taxawee ci mbas mi ñu ne woon dañuy sargal daaw lañ ko naroon a def. daaw foofu yàlla def deuxième vague bi duggoon ñuy reporté woon ko donc ren nag ñuy jàpp datu 24 octobre ba le 30 octobre huit équipes ñoo koy joué juróom-ñetti koy joŋante ñaari premier wu ñaari poule la poule bu nekk day am ñeenti équipe ñaari premier wu poule yi ñooy final directement ñu woo doctor yi sargal leen jox leen yi nga xam ne euh, joueurs yi nga xam ne ay professionnel lañ ñii ay joueurs yi nekk fii fédération sénégalaise ak ligue pro yëpp loo yi ñu teg yëpp ñu jël ko dédicacé ko jox ko docteur yi nga xam ne vraiment seen taxawaay mënuñu leen fay daal ci seen taxawaay ci seen kii. alors euh, pour euh, gën a ñaax nit ñu dem euh, ñàqu ji dina am benn unité de vaccination boo xam ne dina teew ci stade bi stade Amadou Barry foofu la ñuy def match bu njëkk bi ba pare entrée bi tamit kenn du fay waaye soo ñëwee foog nga wane sa carte de vaccination ak sa carte d'identité ngir mën a teew ci ci match yi la ñu dem ca Europe ba léegi ku na ni nag ñi bu rëy ko yéen borom xam yi ci wàllu football ay choc waaw gros choc mën nañ ko wax euh, ku wax Barça Real xam ne euh, classico la fële ca Espagne Barça Real nag euh, bu njëkk depuis 2007 Messi du ca du ca bokk waaye côté Real mën nañ yaakaar ni Benzema mi nga xam ne joueur bu nekk en forme la dina relever niveau bi waaye Messi bu joué wul classico Espagne ñu ngi koy xaarandi ci beneen classico fële ca France Marseille PSG match boo xam ne tamit dina nekk duel entre ñaari joueurs yoo xam ne nekkoon nañ fi jàmbaar muy. Euh, Idrissa Gana Gueye ak euh, ak Bamba Dia fële ca Premier League Manchester United euh, faw mu gagné ci kanamu Liverpool bu Sadio Mané pour rester au contact ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppu championnat bi loolu nag nekk derby bi gën a mag fële ca Angleterre ñu koy woowee the derby of England ñu déglu Mamadou Ndiaye mu présenté ñu gros choc yooyu. weekend choc la ñëpp di xaar li ko waral mooy affiche yu mag yi nga xamante ni nar nañ ko seetlu ci weekend bi fële ca championnat européen yi bu ñu jiitoo fële ca Espagne classico Barça Real mi nga xamante ni moom la ñëpp di xaar ñaari équipe yi ku ci nekk dafa gagné matcham bu mujj ci Ligue des champions bi Barça fas yéene recevoir ñii di waa Real dimanche bi fële ca Camp mu nar a nekk match bu njëkk bu Barça gannaaw Messi ba mu demee fële ca Paris ni candidat la ci Ballon d'Or nga xam ne ci forme nekk nekk jamono ji moom fas yéene jàkkaarloog ndaw ñi nga xamante ni mat nañoo bàyyi xel ku ci mel ni Gavi Serginho Dest wala Ansu Fati bu ñu jógee Espagne ñu dem fële ca Angleterre Manchester Liverpool juróomi poñ moo dox ci diggante ak Chelsea mi nga xamante ni moo jiitee Premier League bi ñeenti poñ dox seen diggante ak Liverpool mi nga xam ne moom la fas yéenee jàkkaarloog ci dimanche bi mu nar nekk choc neuvième journée bu Premier League Manchester war bi yeneen équipe yi nga xam ne ñoo ko jiitu fi mu ne nii raw ko bu ñu jógee Angleterre ñu dem fa boobu ñu am fa taxawaay bu am solo ndax kii di Idrissa Gana Gueye ak Bamba ñoom ñaar ku ci nekk dugal na ñetti bi ba championnat Ligue 1 bi tàmbalee boobaak léegi. Mamadou Ndiaye am na solo. bi ma la bëgg a laaj c'est vrai que c'est des chocs mais am na yu ci gën a attrayant boo xamante ni xëy na tànn sa bu neex la wante xëy na moo gën a gën a drainer public bi rawatina téléspectateurs yi. ah bon yaakaar naa ni euh, ci tolluwaay yi nekk nii Manchester United Liverpool ak dayo bi nga xam ne Premier League euh, am na ko ak star yi fa nekk mooy match bi nga xam ne match bi ñuy gën a xaar la naam boo demee France tamit ak euh, ñi ñuy wooyee les stars donc du PSG. Euh, Neymar Mbappé ak ak ak Messi foofu tamit match bu attractif la mun nañ ne daal match peut-être bi nga xam ne moo ci euh, gën a du ma ni ñàkk solo. mais moom la ñuy gën a mooy xaar mooy bi nekk Espagne ndax euh, Messi nekkatu fa Cristiano nekkatu fa donc Barça équipe bu nekk buy sooxe la xëy na bu ñu bëggee seetaan match bu neex. dinañ fa dem pour gis aspect technique yi mais du match bi nga xam ne moo ëpp pour man tey euh, visibilité par rapport ak yeneen ñaar yi. mu ne kon jamono soppeeku na ndax classico boobu ay jamono <laughs> moom lañ doon wax mais bu ne ba koy classé ci ndaaj yi kon. a ah. <laughs> waaw àdduna day dox nag malheureusement. xam naa ni Barça bu ñu defaruwaatee bien que am nañ nag joueur bu am solo tamit muy Ansu Fati bu ñu defaruwaatee ba ñëwaat au niveau. Mhm. xëy na dinañu gën a euh, niveau classico boobu. Mhm. alors euh, Chérif dañuy wax ci ba tey championnat européen yi naam a Sénégal bu fa nekk di def euh, liggéey bu am solo ndax euh, boo dugalee juróom-ñetti but euh, ci onze match vraiment mooy ni que def nga entame de saison bu am solo kooku nag mi ngi tudd Pape Makhtar Gueye avant centre la mi ngi nekk fële ca KV Ostend moom nag fi mu ne nii wax dëgg yàlla mooy toj ci tàmbali championnat bi moom fii lañ ko formé ci Gorée gannaaw gi dem na Saint-Étienne ñu abal ko Nancy léegi nag mi ngi indi beneen taxawaay fële ca KV Ostend moom la ñu Cheikh Sadibou Diaral di xamaleel dugal juróom-ñetti ci fukk ak benn jongante ci championnat première division bu Belgique Makhtar Gueye moo nekk jamono ji meilleur buteur sénégalais ca Europe ñu gis ni dafay wéyal li mu defoon ci saison daaw bi bi mu dugaloon fukk ak benn bal ak clubam bii di Ostende su fekkee ni ñu ëpp ci Sénégal yi xamaguñu ko Makhtar Gueye mu ngi wane ni buteur bu mag la bi mu dooree carrière ba nii moom mi juddoo Dakar ñaar fukki at ak ñett mu ngi nii di numéro 10 teel na fësal loolu ci US di club bi mu nekkoon foofu la ko Saint-Étienne jënde yóbbu ko France ak ñooñu ñuy dippee les Verts njool mi am taxawaayu 1 mètre 95 ak 90 kilos du am temps de jeu bu takku wante dugal na benn yoon ci juróomi jongante yi mu bokk ci Ligue 1 bi ginnaaw gi ñu abal ko naasi ci Ligue 2 bi mu dugal juróomi yoon ci ñaar fukki jongante yi mu fa def Makhtar Gueye bañ a des ci Ligue 2 bi ba décider jóge France dem Belgique tànneef bi doon lu baax ci buteur bi ginnaaw ñeent fukki jongante ak ñeent dugal na fukki bal ak juróom-ñeent ci noonu Makhtar Gueye commencé siiw ba ñuy tudd dugam ci équipe national bu Sénégal bokk ci gaynde yi ak dem ci club bu mag ñoo di ay yéeneem yi gën a jàmp ak li muy wane jamono ji su dàkkul loolu jomb ko bala ñoo tàggoo Mame Fatou ñu wax ci wàllu marathon Eiffage di ko organiser fi ci Ndakaaru mel ni ñi ngi waajal xew-xew wi waaw waaw bu ñu neexee mën nañu commencer entraîner wu ndax fi ak weer bii di ñëw la ñu ci xaarandi nag euh, vingt mille dawkat euh, ñoo xam ne war nañu daw ci li nga xam ne mooy marathon Eiffage bi war a jóge ci ay euh, dëkk yu bëri ak nationalité yu bokkul démb nag la ñu amal cérémonie de lancement bi cérémonie bu nga xam ne Habib Faye ak Modou jot teewal nañ ñu fa Eiffage bu Dakar ñetteel bi yoon amal nañu ko ndaw ñi dinañu daw ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre waral na itam capital bii nii di Dakar sax di waajal Jeux olympiques de la jeunesse ca atum 2022 lii di wàllum tàggat yaram des na fi gën a am place. Sénégal gis nañ ni bëri na lool ñi nga xamante nit dañuy daw ay athlètes saa su nekk ñi ngi gën di feeñ te am na njort gu rafet ni. atum ren moom ñi nga xamante nit ñooy athlètes yu mag yi jóge ci yeneen dëkk yi ñoom ñi dinañ leen gën a jege te it leen mën a diir mbagg. de l'autre côté du continent là sur l'Afrique juróom ñaar fukk ci ay athlètes yu jóge ci dëkk yu wuute yooyee la ñuy xaarandi fii. lépp lu mu ciy def Sénégal la koy defal parce que dina tax destination Sénégal nit ñi gën koo fonk waaye dina jaayit la ville de Dakar mais li ñu gën a ëppal solo en tant que ministère des sports mooy dina accompagner athlétisme. athlétisme nag nga xamante ne dafa soxla oxygène parce que dañuy traverser des moments si atum ren bi nag dañoo coppi fa ñuy dooree ak tamit fa ñuy teeree li ko waral bokk na ci liggéey yu beerte yi. ñuy liggéey ci dakaar ak la ville de pour def benn circuit ay dix mille kilomètres ay ay kilomètres yu bëree bëri dix kilomètres yu ñu war a daw ak lu ko ëpp marathon semi marathon ndaw ñi ak mag ñi am sax gan yoo xamante dañuy ñëw. defe naa ne waxtu la yoo xamante ne waxtu jongante la mais nag waxtu la yoo xamante waxtu lëkkaloo la yuy tax gën a dellu ci sago. lu weesu ñaar fukki junni ci ay athlètes ña ngi leen di xaar fii ci biir capitale bi Eiffage bi ne la mu gën a bëgg rek moo di askan wi ñëw bu baax ba ñu gën ci gis ci seen bopp bileeg société di ñaan doomu réew mi ñu génn bu baax ngir gën a mën a encourager ñi nga xamante ni ñoom voilà donc euh, comme ni nga ko gisee <laughs> ñaar fukki junni coureur <laughs> comme ni nga ko yaakaaree aussi xaw na bëri mais bon dinañu jéem a yokkaat yeneen ñeent yoo xam ne ci groupe Futur Média la ñuy hmm, xam naa di nga ci bokk ah jiite <laughs> gars yi waaw dinaa tàggat sa bopp lébu bi déggul wolof bu baax euh, vingt vingt mille nga ñaar nga ko tekkee nga ne ci wolof ah, ñaar fukki junni félicitations jërëjëf Mame Fatou ok jërëjëf ñu joxe daje incha allah ëllëg ak lundi aussi di ngeen ñëw ci euh, sport à la une ko defee choc yi ngeen fi wax ak yooyu yëpp ci Europe ngeen daal di koy décortiquer. waaw mais lundi je crois que yaa gàmmu gi. waaw yaa gàmmuwaat ah, voilà wax nga dëgg yaa gàmmuwaat dañuy gaawatu sax ndax ci kanam normalement am na direct bu fa gars yi waram ak suñu envoyé spéciaux yi. lépp loo xamante ni mi nga xew kon ca Medina Baye ñu daal di leen koy dégtal jërëjëf Mame Fatou. ok jërëjëf mbokk yi ñu dégtal leen di gën a fës ci yenn kaay yi ci ngeen jëf décret bi wax ñaata conseil la ñu war a fal ci département bu nekk ci réew mi ñaata conseil ci commune bu nekk ak siège yi nan la ñu war a tëddee l'observateur ne nañu njiit réew mi Macky Sall signé na décret ba yéenekaay bi xamal ñu ne bu dee ci département yi région bu Kees moo ci ëppale ak ñaari téeméeri conseil ak juróom-ñett fukk njaareem topp ci ak ñaari ñaar fukk région bu Ndar topp ci ak ñaari téeméeri conseil bu dee ci commune yi nag Ndakaaru moo ci ëppale ay conseil municipal ndax ñoo ngi leen di xayma ci décret ba ci 3188 conseils municipaux Kees ñëw en deuxième position ak 2710 conseillers Kédougou moo ci gën a néewle ak 804 conseillers nañu caaxaan faaxee ci local déwén yi gaa ñoo nga ca bu baax baax ca Podor kii di Racine Sy sàkku ci Aïssata Tall Sall mu retiré bàyyi ko mu dem nga dem ca Kaolack Serigne Boub Dogu Fane bu jotee ci maire bi mbooleem engagement bu mu jël dana ko respecté fii ci Ndakaaru waa kër Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef yi wanoon ginnaaw coalition Yewwi Askan Wi delluwaat nañu nañu coalition wàllu Sénégal bukki bi matt coalition yeneen yi matt na leen yëf yi bu doon jàngoro la ñu ne waa wàllu jot nañu seen wàll ci virus bi tir bi nañu firnde li moo di coalition wàllu askan wi ci tas la jëm ndax ñoom Pape Diop ña ca bokkoon di waa bokk gis-gis benn tànk la fa am léegi ba ca des ma nga ca jege nañu lool génn ci coalition bi fuqale ak ngàppaaral gi waa parti démocratique Sénégal bëgg a boole ci yëf yi la waa bokk gis-gis gis ne du yëfi nit ne ci ñeen fukki département ak juróom-benn yi nekk ci réew mi ñoom moo di ngar daajoo ñeen fukk nekk candidat ca mairie bu ndakaaru te nangoo gu ñoo wax ba léegi candidat ba kan la source di ñu leeralal li indi bicco beeg mbaalo bi ak ñàkk déggoo gi ci biir coalition yeewi askan wi wax nañu it ne waa taxawu Sénégal bépp gox boo xam ne ñoo ko gañe woon fa suñu yéene bàyyi ko ak kenn xanaa ba mu des diiwaanu Yoff ak Parcelles Assainies sagata Jolof gàcca Jolof source nee nañu askanoo fa ñu yéene tàggoo ak seen maire bii di Kumba Jaw am na lu mat ñeent fukki chef de village ak ñeent yu nekk ca sagata moom la ñu àndal moom la ñu investir ngir mu jiitewaat mairie ba ci ay personnalité yu bari yu fare ci société civile gi Kumba Jaw la ñu investir investiture yooyee témoigné ak journal Le Mandat xëy na di ñu xamal ne ci la coalition yu bari di nato Sud Quotidien ne leen moom kay ak lu ngeen ci mën a dégg ay investiture la yoo xam ne lu ne mën na caa xew investiture de tout les dangers li xew ci biir parti socialiste moo jaaxal Walf Quotidien ubbil yéenekaay bi li mu gis ci doxalinu socialiste yi moo di jikkoy àndandoo bu jarota ci lenn ndax seenu fidélité ci benn bokk yaakaar du toujours la ñu koy wane journal bi nañu ko ko weddi fàttaliku li woon 2014 booba ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ak Aminata Mbengue Ndiaye mi jiite tey ji parti socialiste dañoo génnoon ci liste bi mu was présidentielle bi tegoon ñu teg fi suuf waxi politique te wax ci taax yu bon yi ci dëkk bi yëral xët mu njëkk soleil national démb bi ñuy siiwal rapport bi ñu def li waral bâtiment yi dëkkee daanu ci réew mi di jur ay loraange ki musiba yu dul jeex yéenekaay bi nee nañu fala Boubacar Dañoxo dib inspecteur général du bâtiment waxee ne xayma nañu ci Sénégal ëpp junniy bâtiment ak ñeenti téeméer yoo xam ne bu ñu ci jugul ci daanu la ñu jëm libération nañu junniy bâtiment ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn la ñu wax ne ñoo ngi fii ci réew mi te ci daanu la ñu jëm lu jëm ci liy sooke daanu yu bari yi bâtiment yi di daanu ci réew mi libération nee nañu rapport bi wax na ne ñàkk étude yu wér tabaxin wu bon matériel yi njoogaan ak xëy-xëy bëgg a yëkkati sa bâtiment yokk ko te sóorookoon ca fondation ba yi bokk na ci liy waral taax yi dëkkee nërmeelu fi ñuy nërmeelee dayob doomu aadama maanaam dignité humaine noo ne la journal l'observateur tuddee cellule d'isolement yi ci kaso yi ci réew mi ci gëstu bi mu ci xëy moom journal l'observateur mi ngi ñuy wax ne cellule d'isolement yi kaso la ci biir kaso bi ñaare détenu yi nanguwut a dox ci intérieur kaso bi lañu fay dugal booy Djiné jaar na fa Cheikh Mbacké gajaga jaar na fa Guy yu Sagna jaar na fa ndéem si yàlla Abou Talib Samb di Inno jaar na fa am sax ku wax waa L'Observateur ne moom Inno wax nañu ne jafe-jafey rein gi ko faat mi ngi ko jëlee ci cellule d'isolement jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beek télévision Futurs Médias fii nañu amee ngeen ci xibaar yi bàyyi leen ak baay Cheikh mooy génn seen émission midi plus daje bi ak rédaction bu télévision Futur Média ca kanam lay doon 19h info soir. incha allah.